السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi nuy seetaan ñu fas yéene ànd ak yéen ci leeral diggante boo xamante ni diggante la bopp àddina sépp war nañ koo xam muy diggante bu rafetoon lool ànd bu yàgg lool ak jëflante goo xamante ni lépp mës a rafet muy diggante sëriñ Ahmadou Mbacke ñu gënoon koo miin ci sëriñ Ahmadou Tindodi moom sëriñ Mouhamadul Moustapha moom Xaadimu Rasuul ak sëriñ Modou Roqaya moom sëriñ Modou Mamoun moom maam Cheikh Anta Mbacke kon mbokk yi ñu fa yéene ànd ak yéen ci kàddu yu am solo yoo xam ne bàyyeekoo na ci ay kilifa. ci seede yu wér yoo xam ne mu ngi jëm ci ñaari jëmm yu tedd yi. di andi baat yu néew ci lu bari ci ab tënk lenn ci taxawaayu sëriñ Ahmadou Mbacké ñu gën koo miin ci sëriñ Ahmad Tindodi. kan moo doonoon sëriñ Ahmadou Tindodi. تبكي الأراضي عليهم كالسماوات sëñ Ahmadou Mbacké nag mi ngi feeñ jamono ci à peu près 1920 ci Touba la feeñe jamono teel naa wattu alxuraan lool nag mi ngi feeñ jamono ci yaari waajur yu tedd Cheikh Mouhamadul Moustapha ak soxna Xari Diop soxna Xari Diop doomi Serigne Yaaba Jóob la ñu koy wax Yaaba Xarimaam ci Njaga Isa la bokke génn ci Muxtaar Ndume Jóob mi ngi gane àdduna ci boqaatul mubaaraka bii di pàkku sëñ Tuubaa bu tedd bii di Tuubaa fi la gane àdduna waajuram itam moo ko dalal jàng ginnaaw boo xamante ni nii jaarale nañ ko itam ci barab yi nga xamante ni nii moom lañuy jaarale doomi soxna muy jàng alxuraan ba wattu ko jàng xam-xam ba fa tabaarakallah sëñ Modou yóbbu leen gànnaar moom ak sëriñ Aliou ak sëñ Modou Roqeyo moom sëñ Modou Mamoun ñu sax fa ab diir ba seenum njàng àgg ñu dellu siwaat ci biir réew mi sëñ Axma kon euh, doomi nijaay Cheikh Mouhamadul Moustapha la muy sëñ Yaaba Xari Maam soxna Xari Maam ak sëriñ Cheikh Yaaba Diop mi ñëpp xam ñoo bokk lépp kon sëñ Axma dafa feeñ ci néegum ngor néegub diine néegub jom ba noppi euh, euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha di woy juram ñu bokk fuñ ñu bàyyi ko loolu moo tax mu nuru ko lu bari moo doon kenn ci njabootuk cheikh Mouhamadul Moustapha di kenn koo xamante ni histoire du ko fàtte ci ay taxawaayam di koo xamante nit makarimul akhlaq da koy soxlawoo waxtu wu ci nekk ci jikko yu rafet yu mu di koo xamante ni itam ak bokk da koy soxla waxtu wu ci nekk ci taxawaay yoo xamante ni doon taxaw ci dundal ak bokk. teer a wattu alquran lool. ak njàngam nag wax nañ ne jaar na ci sëriñ su Njaay jaar ci sëriñ Muxtaar Bintaloo àggale ci sëriñ Ibra Jang mi nga xam ne mooy waajur sëriñ Sadex Jang ku teel a wattu alxuraan la itam rafet ko lool njàngam xam-xamam itam euh, liy firndeel ak mën a jàngam xam-xam mooy diggante Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Bachir fi la doon bàggante ginnaaw bi ànd naag xaritam boobu di soppeem di ko xam ne seen ñaari waajur yi benn la muy sëñ Mouhamad Roqaya ñu ànd dem ba gànnaar kon ginnaaw biñ jàngee gànnaar jàng ci Cheikh Mouhamadou Moustapha jàng ci Cheikh Mouhamad Bachir diggante Cheikh Mouhamad Bachir ak Cheikh Mouha Cheikh Mouhamadou Moustapha ak gànnaar foofu ku fi jóge ñëpp dañuy rafet njort ne maanaam xam-xam fa ca am lef yam fa nga ca yam. huqal bukaa'u ala saadatin amwaat تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من فيه غابوا بالحلاوات moom nag jaamu yàlla la bu nangu ak njaam ab jullit la woon itam bu rafetal ak jullitam taalibeeb sëñ Tuuba la woon it bu ko gëm te doyloo ko nit ku yéene ñëpp jàmm la nit ku woyof te mën a muñ nit ku uh, yaatu te tabe nit ku lewet te gore lool nit ku dégg ndigal di koo xamante nii ku musa bañ ku néewal doole nit ku musa bañ itam ku toroxal asgor ci kanamam. 1939 la fi sëñ Ahmadou Tindoo di ñëw nekkoon nit koo xam ne eh, li ko eh, islaam sant lépp matal na ko ci ngor ak ci yar ak ci teggin ak ci mën a dimbalee. sëñ Ahmad nekk na koo xam ne itam ci wàllu dundin maanaam sociale maanaam ku mënoon a dimbalee la ku mënoon a déglu nit ku ñàkk la. ku mënoon a tollook ku dara jaam suufe la e, ab jataayam mooy mbedd ma bu xëyee suba buntu këram ca daaru xudus lay génn ab seesam lal ay basaam e, murid yi toog wër ko ñii am aajo dépasse mu jox leen ku bëgg wax si am tudd ñëw fekk fa mu tuddali la ku am ku wàññi ko ñëw wax ko bu aaja taxaw mu taxaw la ku ñuy miraas mu miraas la ku am sax sa digganteeg sa soxna jafe-jafe moo koy lijjanti ku am sa diggante sa borom kër jafe-jafe moo koy lijjanti sa doom sax boo amee moom jafe-jafe da ngay dem wax ko si Axma mu ko teg ko ci aw yoon. moo taxawoonu alal birri wa taqwa loolu da caa nekkoon bu baax a baax euh, am nañu boromi kër tey yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi sëñ Ahmadou leen taxawu te boobu seeni waajur a ngi fi woon mu taxawu leen ci wàllu kër taxawu leen ci wàllu ba ci ay tool ba ci lépp loo xam ne day euh, euh, indi ay jafe-jafe nit di ca kii rek suñ Ahmadou dana ci sol aw dàllam Budi ayib bu dee lu mën a ci adina ci sol aw dalam bam bam set bam sel sell. na bis ci dëkk bi ko xam domam dafa feebaroon mm, ci guddi gi mu ñëw bu fi mu ko ci suba gam wax ko suñu xam ko man day ba xawuma di mere kenn waye mere na la dal di wax xam leen sama buntu bi dama ko tej dama koy delo rek lu tax duma ko tej moy seen jëm yi rek ma fi suma munta dimbali ci walu sa ergi yi lu ma fi don bàyyee lolo bokk na ci lum daan wax. daawul gàntu benn soxla it soxla yëpp yamoon na ci moom xameewu ci woon góor ak jigéen mag ak ndaw loolu noonu dana lu dëgër. ci barab boobu yi am suñ mbokki alpulaar yi ñoo ñuy def di màngaan ñëw foofu ci Tindodi waaye ñëw ci borom dëkk ba nag di yëglu sëñ Ahmad Tindodi fekk itam soxnaam daa am gone ba mu mu ñëw ci sëñ bi di ko yëglu ni ko dama nekk ci sa. biru njabot mang si fi waye soxna ma soxna da am dom bi sangam ma itam di yeglu ni maa ngi fi di wala ñaan waye ca bisub tuddu ba seigne ahmad ay wutum xar yeb ko ci otoom dem fekk ko fofé mu nek ca mang tuddal ko dom ji te kenn ku nek xamna ni al pular li ñu manki mom am am tuddu bokku ca waaye loolu fay tektale ak bax rek ci ni kep ku mu gis seen tuut ci yow dara te jàpp na ni moo la ko moo la war a defal. ab dëkk mënut a dëgër te amul lotise amul lotissement lotissement bi lépp moom moo ko génne ci poosu boppam waaw fayal ko boppam bi mu noppee dafa waxoon ne taalibe yi liñ ci lot mooy liñ liñ ci sant mooy mooy ñi dëkk ci ndax nag loolu lu ma war a def la ma def ko nekk na fi ba jógee fii dem maanaam benn benn suuf boo xam ne dañ ne sëñ Ahmadou moo ko jaay wala xaalis di caa topp mu def ko amul. amu ca kenn koo xam ne it la mu la sédd ci ay cër ci wàllu suuf da laa caa laaj dara loolu defu ko woon moom moo fay lotissement yi moo fay borne yi moo fay ñi ci daan nekkee lañ leen jox moom moo leen ko joxoon. diggante tuddi doom ak fas ab sëy ak taxawoo ko fi bàyyi ko loolu def na ci loo xamante ni nii histoire du ko fàtte mukk diggante itam dimbalin it ak taxawoo ko soo amee jafe-jafe ñoom itam fa tabaarakallah fa am bis mu tok fii ci teen bi xam ngeen ne eh, teen bi dafa guddou ndax sondage la buñ ci rot day metti lu ak takkusaan mu tok fi mu jàgg rek mu daal jog kanam gi xin mu dugg ci biir eh, kër gi ci suba gi mu gis ay mag ne leen daal bala ma amati jàmm tindo danay am ndox mu ñu naane mo bokkat ak ab goj xam ngeen ne jamono bobu Samba yalla mo nekkon ci hydraulique eh, jamono yoy it wut ak bi Serigne Cheikh bi ko suñu Abdoulahat bolek Samba yalla waaw serigne Cheikh Aliou ci ndox mi ñu andi ko moto bi nga xamne moy pompe ci teen bi kéro biñ ko ëndé biñ ko lémo ba nopi sey Ahmad dafa tok fi tangal lu fe go bare bari nee nañ ma sant la yalla ndax li bokk na ci dama bëggoon ndax dëkk bi suma sañon sañoon lay bu àddina ak alaxira la ñuy boole na ci lo xamne xamal nañ ko bu baax ci moom. yaa lahfa nafsi ala fardil akabiri man xaabu li rabbin daahum kan mooy Serigne Modou Rokhaya moom Serigne Modou Mamoun moom maam Cheikh Anta Mbacke. sama kilifa di sama mag ju baax joxe ne moom man jikko yu baree baree bari maa ngi koy naw ci moom te di ko roy ci moom. sëñ Sidi Moxtaar def ne ma sëñ Tuubaa bi mu liggéeyee ba ñëw. Euh, daaru salaam la la la wàccee bagaasam bi mu ñëwee daaru salaam la wàccee bagaasam daal ni ma waaw boo boo safoon dugub ci àll ba indi ko ci kër gi def ko say sibaar sibaar mooy eh, takki dugub yooyu ñuy róofale mu nekk bu mag ñaari takki dugub ngay róofale mu nekk duubal mu ne ma boo ko safee ci àll ba dikk teg ko ci barab mu am fa ñetti fan ginaar yee cof ko gës ko def ko lu ne nga soog koo jël bojj ko bu asamaan sébbee loo iñaan iñaan dugub dana fa sax yaay ndax fepp ya faratoon bu bu bu asamaan si si sébbee mu sax mu ne ma maam Cheikh noonu la mel ci yoon wi ne ma ne ma wàcc ga fa sëñ Tuubaa wàcce woon bagaasam ba mu jógee ci géej gi ak dolli ko la ca ñoom goo xam ne suba guñ xëyee danañ gis lu ko firnde ba ba àdduna di tukki sëñ Sidi Muxtaar mu wax lii. jikko ji nag moom moo tax sax ñuy def témoignage bi waaye boo nee sëñ Modou Rokhaya rek. defe naa ne ku xam nga xam ci yoonu murit daañ xam ne ndar keppoon na jamonoom waaw mag yee jàlloon nañu mag yee topp ca waaye toppaat na ca te amutoon lenn lu ko nit mën a xoose ci genn wàll sëñ Modou Rokhaya eh, mu nekkoon koo xam ni mën nañu wax ni model la woon ndax dafa nekkoon nit ku jafe ndax li gën a jafe ci àdduna ñoo ngi koy waxtaane léegi rek am barke am xam-xam am mbooloo nit ñi bëgg la ba noppi loolu yëgoo ci dara te benn garaat bu ci nekk ab garaat la koo seen muy daw bu sañoon am mbooloo koo seen mu daw bu sañoon nit ñi bëgg ko koo seen muy daw bu sañoon am dara koo seen muy daw bu sañoon am barke ndax du ndax dootu wuti dara moom nag yépp yàlla da ko defaloon. ki yàlla yoon yónni ci jikko rek lañ ko tàgge dëgg la baax na ay ndey ak nag waaye jikko jëm mooy mbir ma sëñ Modou nag nekkoon foofu euh, ci yoon wépp du kër gëm ne rek ko respecté ñëpp ko respecté woon ndax lan euh, dafa jëloon taalibe gi. boo ko xoolee sax doo xalaat ni kii moo doon euh, maam Seex Anta moo doon sëñ Modou Mahmoud moo dem ba toog jataay ba doo xalaat loolu da xalaat ni kii kaneen la ndax yar ba ak teggin ak taalibe ga waaye fulla ja nag mboolem ku mas a jox ab cër bu toogee ci sa wet bàyyi xel na sëñ ma Rokhaya ak sa ndax du nangu dara dara loo xam ne lu di la wala kaneen di doon ci yëfee dara garab goo daggab doom boo ko yéyee doom ba lay saf boo doo dagg mukk ab pom lekk ko mu lay saf kaani doo dagg mukk kaani lekk ko mu lay saf darkase wala mu la saf leneen kon cheikh anta maam cheikh anta sëñ mud ya rek euh, euh, la la la mën a saf te sëñ mud roqee këlti yooyu ma wax ci moom léegi yooyu naka jekk moom laa xam ci moom te xam naa ne bari na ñu mel ne man itam ñoo xam ne moom lañ xam ci moom. ku amoon fit la ku amoon fulla la borom xel mu rafet la nit ku nite la woon moo tax jàmbaar la woon. yàlla dafa dogaloon sëti maam Seexante yi ak suñaafe moom yàlla dafa dogaloon moo ci magoon mu doonoon mag joo xam ne itam eh, waxuma la lëkkalee. kër yëpp ci yoonu murit ndax kër yëpp mooy euh, njabootu suñ mbàkki marant sali di njaboot goo xam ne nii déggoo lañu tàmbale bañ jógee ba fi ñu agsi fi ñu agsi mooy sëriñ bi feeñ ci seen biir alaaj siñ tàkko fonkoon sëriñ Modou Rokhaya la am na lu mu ko dénkan ci boppam ci gannaawam te sëriñ Modou Rokhaya taxawe na ko taxawaay bu ma sëkk ban xam ko noonu njaboot gi euh, yooyu nag te El Hadj Ndiago nag daaw jaxasoo ku ne waaw du caa génn ku ne laan jaxasool même ci taalibe bi itam ku muy jaxasool ñeent jikko yi ma la wax day na ci yow nekk gum nekkoon si mu doxee moo taxoon mu yokk cër boobu. El Hadj Abdoul Wadoud Mbacke diggam ak moom euh, aw fan a gàtt rek waaye kon. nun ñi buñ ñëwee daan fi fekk loo xam ne lu rëy rëy la fekk nañ ko naam waaye àgguñu woon ci dayob mën a jëflanteeg moom nañ ko bëgge muy diggante ñaari kër yi dara bañ fee dox muy lenn rek ni ko maam Seex Anta nekke woon ak sëñ Afe niñ ko nekke woon ak sëñ Tuubaa ba jàll ci njabootu sëñ Mbàkke Mor gépp dafa jàppoon ne moom moo mooy mooy soldaarub nit ñi waxuma soldaarub waa Daaru Salaam waaye dafa jàppe woon boppam soldaarub sëñ Touba lu ñu tudd di tudd sëñ Touba rek mu nekk sab soldaar. addiya ji dafa bari lu muy symboliser parce que bennoo njaboot gi njaboot gi bu nekk di nekk benn bis boobu da koy symboliser beneen bi itam mooy euh, noonu ñu koy defee néew ma ñeneen mënuñu ko waaye ñu ko mën itam defuñu ko ni ñu koy defee benn samedi nga dajale ci 365 millions ci benn samedi. loolu moom mën naa am am nañu mën a dajale lu ko ëpp sax waaye ci benn samedi nag mooy problème bi noonu nag ci benn samedi lañ koy xëy dajale bu ngoor ñu mën nañ koo dajale jox ko ki fi nekkal borom borom borom Tuuba loolu nag euh, wax dëgg yàlla ku ko dundal itam faw ñu nangul la ko mooy boo fexee ba nga xam ne ñiy joxe addiye lu ñu bari bari bari bari ñaare néew na ñu ni diw jóge na ci kër sàngam dem yët sëriñ bi nàngam moo la le néew na ndax foo teg sab tànk ren boo liggéey nga teg sab tànk fu ko raw aw fit foofu la mën a tàmbalee yem fi bi ko ñaareel mooy sëñ tubaa amul tànki gannaaw tànki kanam la am tànki kanam yooyu daaru salaam fexe nañ ñoom ba nga xam ne bokk nañ ci tànki kanam yi fe fesal nañ tànk kanam yi ndax niñ ko fesalee mooy bu fekkee ne joxe nga téeméer ren ji bu nee nga joxe ñaar téeméer boo joxee ñaar téeméer bu déwénee nga joxe ñett boo joxee ñett bu déwénee nga joxe nangam. nga Euh, nun jabor gi sunu symbole bi gëna reuy moy joxe addi sunu addi yi ñu dajale deug la serigne mo amadou mamoun rahmatullah moko sos deug na joxon ko serigne fallu mu donon million mo ab boole woon almet almet ga lam lam doon signifié moy nu la neex defal duñ la laaj nok foko duggal duñ la laaj noko def wax almet gi mom almet gog rek doyna jëru di répéter wat euh bu ko nak sëñ Modou Rokhaya rek moo ko yeesal dimension bi muy doxee moom gannaaw yàlla wax dëgg yàlla sëñ Modou Rokhaya tax. jikkoy sëñ Modou Rokhaya mooy mooy jikko ju rafet rek. innaka laxalaa xuluqin asim da nga daal di mën a jëlaat jikko jooja eh, di ko di ko wàcce di ko wàcce baax si moom nga tegaat foofu jikko jooju te kenn du ca mën a dandal dara. dafa am ñeenti jikko sëriñ Fallou yoo xam ne jullit bu ne war naa fexe bam daje ci yow mooy fulla aw fit xel mu rafet aku nite waaw dajale ñeenti jikko yooyu jullit bu ne war naa góorgóorlu bam daje jullit bu ko dajale jàmbaar ngay tudd waaye nag boo ca amee benn am bu manqué ne man ngaa nekkub dof waaye nag sëriñ mu doqee moom yaakaar ku ko xam xam nga ne ñeenti jikko yi mu ngi woon ci moom kaanuu ibaadan bi taatin li rabbihim wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati diggante ñaari jëmm yi nag muy sëriñ Modou Rokhaya ak sëriñ Ahmad Tindodi diggante la woon boo xam ne rafetoon na lool ñu daan jëflante te séqoon lu yaatu ci fànn yu bari loole di kàddu yu seede yoo xamante nii am na kilifa yu bari yoo xam ni wax nañ ci lu ñoo ñi nga xamante ne ni ñoo fi bokkoon nekk benn ci sëñ Modou Roqe moom yi nekkoon fii benn ci sëriñ Modou Bousso Dieng yi fi jaaroon benn yi itam ci Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachir yoo nga xamante ne ni jaar nañ daaru naayim ñu naan innal abrara la fi naayim nekkoon fa ak ñenn ci njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha nekkoon fa itam ak ñenn ci bokk yi da gis relation yu dëgër yoo xamante ne ni dox na seen diggante. ñoom yàlla moo leen boole woon ci bokk ba noppi ñu firndeel ko ci seen i jëf. diggam ak uh, sëñ Modou Rokhaya mii di. tawub sëñ Modou Mamoun modou sa lañ ko jox moko jangal moko yar mu jaxaso ak njabot gi bi dem gànnaar itam mom ak sëriñ Ahmed Tindo di ñoo and dem ak sëñ ali baye won na xel itam bokk yi loolu likoy firnde rek moy nim bare won ay trondo ci bokki bopam yi. soo demee kër euh, Cheikh Mamadou Fadel sëñ Alxaaji Baara tudde woon na ko nga wax sëñ Ahmad Baara yaakaar naa dafa génn àdduna yàlla ko yàlla yërëm mu mel ne ay nit su fekkee ne dañoo bokk fu ñu wattoo xam-xam jaxasoo ci diir bu yàgg seeni jikko day daal di mën a niroo ci lu bari seenub ànd itam day daal di gën a rafet ndax kenn ku nekk da ngay xam wàccuwaay bi nga xamante ne ni moom la sa moroom am ci yow loola taxoon na soo demee ci biir kër cheikh si ahma yi ahma nangam ahma nangam ci bunt kër cheikh sepp dañu am ay ahma waaw ay ahma sar ahma nangam manam bunt kër bu dee am na fa aw aw aw torondo cër yi nga xamanteni lañ doon doon cër yu am solo yoo xamanteni ni fim toll jamono soxla na ko ndax fim mu toll nii boo gisee ñàkk a déggoo di ku bari wala ñàkk bokk xalaat wala ñàkk bokk ay principe ñàkk bokk fu ci la. te mag ñi suñu borom dimbali loon na leen ba ñi mag ci seen njaboot ñoo bokk benn barab buñ yoro bi ñu dellu siwaatee itam jëwriñi sëñ Tuubaa jooju yi nga xamante ne ni moo leen yoroon xiirtal leen ci boppam nàmpatal leen ci boppam xam ni yar taqoo la laaj mun leen kaay leen jàng ma man ginnaaw boo xamante ni yër nañ li ci téere yi ñu taqoo ak moom ci ak jaxaso gower wér ba mbollem jikko yi nga xamanteni ni jikko sang la sun borom dotti ko ci ñom ci jikko yo xamanteni ni moy makarimul akhlaq ci la yalla don tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam, te mo taxone yonent bi ñew jamono defaron seeni seeni jëmm ba foo leen mën a séen te xamoo leen sax da nga leen xemeem lool boo jaxasoo ak ñoom danga nga naan kii rek laa doon wër moom yeex na ma agsi ci moom koo ci dem këram itam naw ko ci wuuf goo xamante ni ni wuuf nañ ko seen seen njaboot wuuf ko itam njaboot gi nga xamante ni moom na leen mag ñi loon ci bàyyee leen lépp luñ am te luñ ñu yor buñ ko soxlaa ñu bàyyee ko ak ñoom فأنهما في الليل باعوا بالمعروف sëriñ Ahmadou di bi mu fi bàyyeekoo wuy ji suñu borom sëriñ Cheikh Aliou Mbacke mi moom moo ko fi nekkal nekk fi xalifaam ñu koy ñaanal mu gën a yàgg lool te gën a wér lépp lu sëriñ Ahmadou Tindodi naaloon rek yóbbu na ko fu gën a kawe ci ay réalisation yu am solo yoo xam ni def na ko buñ ci jëlee dëkk bi nga xam ne moom moo di rek da ciy doy firnde ci jëf yi nga xamante ni amal na ko ci dëkk bi ba gën koo suqali bu baax a baax. muy Cheikh mu ci penc mi. jamo kaddu nit ñi xamal leen ne leen <coughs> dëkk bi du sabab dëkk dëkk Sëñ Tuubaa la dëkk Sëñ Muhammadu Mustafaa la <coughs> ay wajur ñoko yoron liñ ci def mo yok ko lu lu mbalit la xamni duma ko fendi mbalit mbalit mbalit da la du sabe al di ko lu du mbalit ta ma am ko ta sañ ko dina ko fendi lolo tekki wu ci ba bis na tay ji ma wax yow bu dugg ci dëkk bi so woné gannaaw dëkk bi lu koy jëmee kanam rek ci la nekk loolu bokk na ci euh, làmp yi ñëwaat sa gannaaw li ci xew yokk ndox mi. si Cheikh mi ko fi wuute itam modèle la boo xam ne roy na ko bu baax ndax euh, xam nga ne sëñ Ahmadou ak sëñ Aliou ak sëñ Abdou Salaam ku toog téye seen ndono te kenn ku ci ne sa nekk ndono lu diis lu yaatu ginnaaw nga boole téye ñetti ndono yooyu yëpp te dara lalu suuf kenn ku ne xam na ne kooku ku xam ndono li ko yàlla jox la te téye na ko. téye na ko ci jikko ju rafet téye ko ci njàmbaar téye ko ci tabax. jumaa ji kër bi mu ko tëddee taw fii képp koo xam ne gisoon nga ne gisoon xamoon nga plan xam ciment xam suuf xam li ci ak liggéey am nga sa firnde ci na ndax loo xam ne daanaka ay 60 naa nga met nga taxawal ko ci benn barab ba pare ne wóowuma kenn déedéet ku ngeen ku ngeen gis mu ne leen sëñ Cheikh nee na jumaa ja wut leen yat këram këram këram gi moom ca Ndakaaru la jaay def ci lu mu waay jox nag ma def ci boo ko fekkee jumaa ji boo ko joxee addee da lay wax ne ci jumaa ji la ñëw wala fu mu jëm boo ko ne jumaa ji beneen loxo la koy jox te boobu boole woon na liggéeyu jumaa ji ak liggéeyu maa uraxma ak mbirum boppam boo ko joxee su xaalis da lay wax ne la ndax ci jumaa ji la jëm nga ne waaw mu jox am mu am ko mu jox boo nee ndax ci maa wala jëm mu ne waaw comme jëkk dajal la ko yónni la ko demal banque indil ma rosi bi. si Cheikh Bati Seer la. maanaam fa fa fa tundoo ne nekkoon tey boo fa demee ci penc ma da nga xam ne wees na ko soo demee Daaru Naim fa mu tolloon soo fa demee da nga xam ne wees na ko te jamono gën naa xaw a xat yi te gën a bari te it fi jamono toll fi metti la waaye teewut mi ngi jànkoonte yëpp ba lépp loo xam ne jaadu na ci ab dëkk mu ngi ko fay jéem a def lu jaadu ci ay nit ci waxtaan ak ñoom ak diisoo ñoom lépp mi ngi koy def kon daal moom moom itam wax dëgg yàlla doon na leen te it doon na leen. ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te bi mu doxee tuuti dafa yokk ci wet gi lu mat ñeenti junniy kër waaw yoo xam ne ci biir natt suñu axama la bokk ndax dë dëkk bi moom suñu axamaa ko natt bi mu si jeexalee lii suñu saaliw moo ko natt waaye li mu ngi ci loo xam sanc yu njëkk yi ñëpp dañ leen jox rek ñu dëkk ne leen nag léegi kenn ku ne na na ñëw rek dëkk ku dëkkul nag dama ko jël wax leer bi ki toppaat nga xam ne diggante daaw ak ren li dolli ko waat fii ñaari quartier dolli ko waat na fi waaw Darul Anwar, ak daru salam daru anwar lum gat gat waaw daru salam gi waaw amna daru amna amna daru Darul amna daru salam bo sété daru anwar lum gat gat da na man ñent jinni kër bo sété daru salam lum gat gat da dana man juroom jinni kër nga xam man juroom ñent jinni kër digënté daaw ren joxé na ko fi. تجفو المضاجع في ليل جنوبهم ناسين سلمى وليلى بالبشارات فحيثما برزت ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بطاعاته sëriñ مود رقيه bi mu fi ki nga xamne mom modi serigne Cheikh antamba ke mom moko ko weyele wéyale bi nga xamanteni mom la fi bàyyi liggéey boobu nag fépp fu ko sëriñ bi tegoon muy sëriñ Modou Rokhaya sëriñ Cheikh Anta yóbbu na ko fu gën a kawe di jëf ju wér joo xamante ni lees mën a teg bët la. sëriñ Cheikh Anta Cheikh Anta euh, ñu baree bari am nañ kumpa ci sama digg ak moom moom sama xarit la sama te xam naa ni itam ku ma bëgg la xam nga nit ki su ngeen jëflantee rek nga xam fi mu la teg. bari na teraanga yu dox sama digg ak moom yu may defal yoo xam ne kenn yëwu ko ku dul maag moom yàlla te xam nga teraanga bi ci dàq Sëriñ Fallou mooy teraanga joo xam ne ki nga koy jox xam nga ne lii nga koy jox am na ko waaye jox nit loo xam ne moom boo ko joxut boo léegi mu ñëw laaj la ko boobu sax amut solo boobu mën naa tudd na ren waaye teraanga dëgg dëgg dëgg dëgg bi ci ëpp solo mooy nit ki li nga koy jox mu leer na lii nga koy jox am na ko loolu laa seex ak Sëriñ Seex du ma jeexal tam nag ci moom te du ma reconnaître euh, acte yi muy def ci wàllu taalibe gi ci kër Sëriñ Touba. liggéey yu am solo yi mu fiy def yooyu itam xam nga wax yomb na ma ne su ko wedd waaye jëf moom da nga naan mi ngi nii te lim ciy jëf nag wax dëgg yàlla yaakaar naa lu su mën a teg la te mu tàmbalee ko ca Serigne Sidi Mokhtar wala ko jiit woon ci Serigne Saliou ba ci kii fi nekkal Serigne Touba ñoom ñëpp mu fexe ba ku ci nekk mu làq sa ngërëm loolu du lu tuuti loolu lu am solo la te itam li ci gën a rëyaat mooy damay gis ne saa noppee ba di ko joxe ci tuuru kër gi la koy joxe. loolu itam lu am solo la. li ko taalibe yi di jox mën naa joxe ne fee laa ko joxe loolu lu am solo la ah parce que taalibe yi léegi dofuñu saa buñ la joxee dem ñu ngi xool fi nga koy def. beneen acte bi muy def itam bu amaat solo boo xam ne mat naa bàyyi xel mooy mu ngi wuta kër Serigne Modou Rokhaya yi muy defaraat ci Daaru Salaam ak ci tuubaa gars yi li gën a man mooy defaral seeni doom ndono waaye defaral say doom say say rakk ndono moom am na waaye bëriwul. loolu itam il faut ñu reconnaître ko. njabootug Serigne Touba gi nag seeni diggante rafetoon na lool te it rataxoon na lool. te it kilifa yi saa su ne ñu ngi doon suuxat bu baax a baax lépp lu jëm ci mbokk gi ngir gën koo dëgëral. mu nekk nag jëf joo xam ni ak diggante yoo xam ne lees war di leeral la ndax lees war a xam la ba mën cee jàngat bu baax a baax ba mën a sàmmaat bu baax ndono yi nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon. قوم بأسلحة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات